toujours ci seen acte du jour tey àllarba juróom-ñetti fan ci weeru novembre atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett suñu jógee foofu dañuy des ci présidentielle 2024 yi nga xamante ni moom la ñuy au mois de février muy benn jonction boo xamante ni képp koo xamante ni da nga am doole jëm ci benn victoire boo xamante ni bu éclatante la bëgg pour jëmale ko ci kii nga xamante ni mooy candidat Benno Bokk Yaakaar di Amadou Ba ginnaaw loolu nag ñi nga xamante ni ñoom la ñu dippee le réseau international des amis et sympathisants d'Amadou Ba suñu xoolee ci benn forte délégation boo xamante conduire nañ ko qui ko conduit nak di seen coordinatrice générale de di Jeannette euh, Mansel Diouf mi ngi rencontré wu samedi bi ñu génn foofu ca Mantala Jolie ñi nga xamanteni moy sen ben mouvement ginnaw lolu Amadou Ba mo candidat en 2024 lako ko en tout cas liñ ci mëna xam dal monam moy victoire lañu bëgg au premier tour muy lan ben forte mobilisation bo xamanteni ginnaw ben rencontre biñ defone muy initiative ki nga xamanteni moy Demba Agne di président du mouvement bobu ginnaw bu mu gisee participation ñi nga xamanteni ay responsable associatif lañ ak politique foofu ca Mantes la Jolie ca France donc suñu xoolee entre ki nga xamante ne mooy honorable Demba Sow kii di Ousmane Dembélé kii di Diamsa Gueye kii di Amadou Gadio kii di Thilo Guissé kii di Fatou Dembélé kii di Bokar Diallo kii di Abdou Mbaye ak yeneen anciens militants yoo xamante ni militants ex Pastef la ñu ku mel ni Seydou Sow bi nga xamante ni ci parti Ousmane Sonko la bokkoon ak ki nga xamante ni mooy Thierno Bokar Sow bokkoon ci parti Ousmane Sonko kii di Demba Ndiaye Ndilane ak ki nga xamante ni mooy Makali yaakaar naa ni ñoo ñëpp ci parti Ousmane Sonko la ñu bokkoon ñoo international de Amadouba de di Ben rendez-vous pour une occasion lay pour coordinatrice générale bi Jeannette Mansel Diouf de rappeler que li si genèse euh, genèse le ci réseau bi dina organisation pour objectif ultime de l'élection élection premier tour qui di seen candidat di Amadou Ba le 25 février 2024 ba tey suñu sukkandikoo ci tuuru ñi nga xamante ni Demba Agne ak ñeneen ñi nga ay responsable la yu nekkoon foofa ci rencontre ba ñi ngi magnifier approche bi nga xamanteni réseau bi acte nako jëm ci sen adhésion ak benn feuille de route bo xamanteni tay indi nañ ko pour décliner lepp lo xamanteni sen gan martelé nako ko muy benn engagement bo xamanteni ni joindre sen ay action jëm ci li nga xamanteni moy réseau euh, international des cercles des amis de Amadou pour une victoire éclatante de Amadou au soir du 25 février 2024 2024 en tout cas muy une jonction dal bo xamanteni ni ñi ngi jëm ci présidentielle 2024 jonction bobu nak ñi di force bi nga xamanteni Les boole pour indil ben victoire qui di Amadou Ba muy réseau international des amis et sympathisants d'Amadou Ba à travers ki nga xamanteni moy sen euh, représentante di jeunes, Mansel Diouf. <laughs> Thank you.